waaw kontaan rek di delloo sant suñu borom comme moo moo def lii si man tey ma joué sama premier match ma dugal Yalla def ñu gagner dama koy gëna sante rek di ñaan Yalla mu ko ne incha non atteindre guñu dara fu mu tonni wax dëgg fa Yalla 3 matchs lañ joué gagner 3 matchs donc euh, Sénégalais yëpp xam nañ suñu objectif moy lan donc dañuy làqatu rek ba keroog ñu naan ko curux rek inshallah rabbi té te loolu ñaan Yalla non man comme li may faral di wax rek man mom lepp dama koy jël jokk suñu borom suñu borom mo dogaloon kan bu bële passé mo ñëw am ay ndok ndog moo dogalaat tamit kan bi mo ñëw moo mu def li gën ci man je suis en bonne santé di yeux sont match bon dama koy gën a ñaan je rek dama koy ma